ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak poche def dara tabarakallahu maa ngi ci koor wala noo ngi ci koor démb bi ñëkkati jataay bi ñoo ngi tolloon ci baadu xikami sawmi wa fawaidu lenn ci eh, koor xikam yi waaye lenn ci njariñ yi ba jotoon ci lim wax ne koor dafa am njariñ ci pénc mi am njariñ ci kër gi la ci jiitu mooy yërëm gi nuy yërëm miskin yi bokk na ci yooyu koor day yemale ñi am ak ñi amut waaw koor dafay ñëw yemale lu ñépp bokk bañ a añ waaw bokk na ca sultaanul aada daf koy néewal doole ci lañu tolloon sultaanul aada mooy ko aada woo dara tàmm ko ba defe na duutu ko bàyyi waaw am na koo xam ne kii jàpp na ne bët bu set war naa naan lëwal bu añee ba pare am na koo xam ne kii jàpp na ne moom war na bu añee ba noppi naan galaas waaw am koo xam ne kii moom jàpp na ne day naan leneen ku ci nekk rek am na loo aadawa ba defe ne warutoo ko mën a bàyyi koor ñëw ne la kaay nu ànd ma dimbale la ngeen bàyyante am na ko xam ne ki jàpp na ne bu añee pare foog mu tux ab cigarette koor ne ko kaay ma dimbali la ci sultaanul aada boobu bëgg la téye waaw ñu bare bare bari ci pénc bi ku ci nekk rek ak la nga xam ne euh, yaa nga ca moom waaw man li ma koor di dimbalee <laughs> yàlla na ma yàlla yërëm mooy dugg sama néeg yooyu miskin waaw na ma ndaw kundaa yi baal waaw suma mag suma magum daar ma leen nekkoon ca ndeysaan golf ndeysaan imaam Ibrahima Dia yàlla na ko yàlla yërëm imaam Ibrahima Dia rek néegam néegu ko sant ja dëgg la woon waaw moo duggee <laughs> gerte caaf gaa ngi nii gerte guñ lakk gaa ngi nii gerte guñu rut gaa ngi nii rekk tabaarkàlla imaam Dia ndeysaan ku baax la woon waaye e, ku ne ci ñun rek am na loo xam ne ci sultaanul aada boo seetloo ni koor def si mooy dala bëgg a dimbale ba loolu nga nga dominer ko waaw nga dominer te boo ko dominer daa am lu muy tekk ci yow waxoon naa ko ci benn conférence fële ca Gibraltar sama gaa yu baax yooyu ñoom imaam Pape Samb yàlla yàlla so yokk leen wér may leen xoolal réew mi ni ñu tàmmee añ reer ndékki ba defe ni kenn koo bàyyi koor ñoo bëgg ñu cee dimbale waaye bu ñu waree rek jëlaat ko ma ne leen nañu réunion nañu réunion nañu def agit national waaw pour bàyyi añ nañ ci waxtaan ministre bi yor wàllu wàllu économie <laughs> waaye daal dama dama yëkk sama kaddu rek ndaw ku ndaay ni ma tegal ci suuf waaw tegal ci suuf ànd ak nag loolu <laughs> daal kenn mësu ko gis rek eh, tegal ci suuf laa wax mu ne mu yën waaye koor dafa bëggoon ñëw dimbali nu gis nga añ ak reer ak ndékki ci suñu réew mii non c'est extraordinaire waxuma la dara sax waaye añ ak reer ak ndékki temps bi muy jël ci ab sénégalais non ndékki li sénégalais xam nga moom daal mu ngi noonu rek ala <laughs> ah? añ ndeysaan da ngay gis eh, Yacine Diop nga fële ca Ndar ndeysaan ci Ali Imran la bokk Yacine xëy huit dem marché ba treize heures lépp mi ngi ci añ bi xoolal temps bi añ di jël rek waaw ala kulli xaal yooyu ñu tuddee sultaanul aada café yeeg ataaya yeeg gerte yeeg eh, ndeysaan glace geeg yu mel noonu yëpp koor dañu ne la kaay ñu jàppalante ma ak yow ma dimbali la ci ba nga dominer leen ndax fi ne dominer nañ la hmm? mu ne maa ko wax waaw dominer nañ la yàgg moom yàgg moom ba mu tane waaw yàgg moom ba mu tane waaw bokk na ci yooyu li koor di def ci nit mooy taqwiyatul iraada al iraada mooy nit nit li ko tëgg lépp mooy vol li ñu tuddee volonté al waaw mu ngoog al lu am solo la waaw mooy koo xam ne am na lu mu bëgg gis nga ki am lu mu bëgg ba noppi jëm ca loolu mu bëgg bu amee iraada dana ca àgg waaye volante bu dem foofu bu fi amul nit du def dara nit bu amul volonté du def dara tilka ummatun xad xalat laha ma kasabat sunu borom ne li ngeen fi fekk nii dafa am ñu ñu leen fi jiitu def ko yéen nag lu ngeen def waaw li ngeen fi fekk da ngeen jiitu ay nit daf leen def ko mais yéen lu ngeen def waaw sa Ahmed Dame Ndiaye mu ne minimum ci liñ war a def mooy fexe ba loolu mag ñi defoon mu bañ a yàqu ba xara minimum comme ñun defuñu dara ma ne ko wax nga dëgg de yàlla na ko yàlla yokk wér waaye ñun daal moom daal mu ngi noonu rek koor nag dafa ñëwoon pour iraada boobu mu mu mu mu mu mu yëkkati ko su su nekkoon su nekkoon ci politiciens yi yàlla na ci nekk su ci nekkutoon yàlla na ci nekk iraada bu nekkee ci politiciens yi léegi tey pénc mi soppeeku changé bu ci iraada nekkut nag leneen mooy nekk ci politique bi mooy faggu ci faggu ci am-am faggu ci aw tur et cetera waaw su ko defee volonté war a nekk ci politique du ci nekk waaw walla engagement comme ni ko politiciens yi tuddee ñoom ñoom Ablaye Wilane waaw lu ko yàlla yokk wér waaw ngokk benn professeur allemand benn professeur allemand moo doon yëkkati lu mel noonu waaw ndax allemand yi yàlla daf leen a may ci côté yu bare bare bari waaye iraada bokk na ca waaw ab allemand bu jógee jëm ci nangam boo ko téqee day daanu mais bu daanu du xool suuf lam jëmoon loolu lay xool boo ko téqee mu ne groupe daanu du sëgg déedéet bët baa ngay teg ca lool mu jëmoon moo tax yàgg-yàgg daf ci àgg waaw mu ngoog moom almaa boobu wax na ne jumtukaay boobu ñuy tuddee al iraada jumtukaay la boobu fu nit àgg moo ko fa àggale jumtukaay la boobu ku ko amul doo àgg fenn doo dem fenn doo départ sax nag mbokk yi koor yooyu daa bokk ci li ko fi tax a ñëw lépp nag génn ci laalakum tattaquun waaw mu ñu ci beneen tomb mooy lislaam a ngi lewetal jam-jamu koor ndax koor dafa am ab jam-jam maanaam ab métti métti maanaam dangar na ko sëriñ kër Si daan tudde fam dangar daŋar jooju nag sunu borom daf koy lugg allahu akbar sant nu koor luggal ñu dangar ji <laughs> waaw sant nu koor luggal nu dangar ji Hmm? waaw ndax koor mën naa ñëw fekk nit ki wéradi koor mën naa ñëw fekk nit ki nekkul ci dëkkam mbaa cim réewam waaw mu ne koor gi day kutiba aleykum siyaamu ñun ñëpp ñu ne waaw tàmbali ndeysaan mu mu seppi ci sunu biir nag benn nombre boo xam ne bi marid marda lañu fu man kaani minkum marida waaw aw ala safar fa iddatun min ayamin uxar ndeysaan mu ne koo ci xam ne dangaa wéradi lebal naa la koor gi ba nga wér koo ci xam ne dangaa tukki lebal naa la koor gi ba nga ñibbisi feebar bi nag dafa am feebar buy wér ak feebaru robaale loolu la kolof di wax nga xam ne feebar bii moom koor gi jeex taxul nga mën a woor danay dal danay dal nit léeg-léeg màggat ga mooy tax léeg-léeg jigéen la dafa ëmb léeg-léeg jigéen la dafa wasin léeg-léeg dafa feebar léeg-léeg dafa damm léeg-léeg dafa mu ngi xeet feex feex xeeti feebar yi rek tabarakallahu waxtu wi daaw nit ñaa ngi tiit tiit ndeysaan ci feebar bi fi nekk ndeysaan yàlla na fi jóg ak jàmm te bañ a dem fenn waaye daal ku feebare yàlla mu ne lebal naa la ba nga wér ku tukki lebal naa la ba nga ñibbisi waaw tukki bi nag du tukki fo du tukki caaxaan du tukki damaa am match capital damaa am match capital déedéet tukki bi mooy tukki boo xam ne am po taxut ak mooy taxut tiitaru taxut waaw tukki yooyu la te fekk doo fa am lu ëpp juróomi fan walla lu mat juróomi fan ala kulli xaal benn ngoog mbokk yi ci lugg bi yàlla lugg dangari koor waaw lugg ba am solo mu lugg ko dangari koor dangar mooy li nekk ci jaan walla li nekk ci jiit nga xam ne bu la fettee bàyyi ci matière bi ci sa yaram wi mu mën cee def ay yëf loolu mooy dangar sunu boroom luggal nu dangari waaw bokk na ci lugg gim lugg dangari koor wa ala lazina yutiqunahu fidyatun taamu miskin yutiqunahu mooy ñi nga xam ne mën nañoo woor waaye fa muy mujj mooy saf woor far mujjee hôpital woor bëccëg nga xëm waaw yooyu ñooñu lay wax ak mage dana koy def léeg-léeg ak yu deme ni keeg mage ñooñu sunu borom ne lebal na leen koor gi wala boog daleen di jaay koor gi nu mu leen koy jaayee fidyatun kuñ koy jox miskin fidyatun taamu miskin waaw miskin lañ koy jox maanaam kooku nga xam ne lottu na ci koor gi ndaxuk mage bés bu jot ñu ne ko war ngaa génne temps ci xaalis walla temps ci pepp mi ngay dunde par exemple te ñu ne ko bu ceeb dee jar deux cent francs kilo bi kon war ngaa génne deux kilos muy huit cent waaw léeg-léeg gars yi arrondir ko ba àgg yóbbu ko ci mille francs waaw kooku ci lugg yàlla lugg dangari koor ci la bokk ndeysaan waaw waaw ñi néew doole ñi ñi nàmpal ñi ëmb ñi feebar te ñu yaakaare wér waaw ñi ñépp macha allah dañ leen di bàyyi xel ci koor ñu leb bu ngànt la dañee ñu fay ñi seen ngànt dul dañ ñoom ñu génne mudd xam ñu génne fidya jox ko miskin waaye mbokk yi bi yàllay lugg dangar ji daf ci wax laay ju am solo fa fa man tatawwa xayran fa man tatawwa xayran fa man tatawwa xayran mooy ko def luñ ko sëntut waaw ku def luñ ko sëntut c'est-à-dire euh, ñu ne ma bàyyi mbay munta woor waaw ma war koo génneel muddu ñu ne ma huit la ma naa ah, naa ko far def mille sunu borom ne noonu baax na de noonu de baax na walla ñu ne la saakoob ceeb la ak fukki kilo nga ne naa ko def ñaari saako baax na de waaw walla ñu ne la euh, booy génne fidye boobu danga koy génne pep nga ne ah naa ko génne ginnaaw mudd lañ ma wax naa ko wala boog euh, ñeenti kilo lañ ma wax ñaari kilo lañ ma wax naa def ñeenti kilo lu laa bëgg wax waaw fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la waaw sunu borom nee na képp koo xam ne kii dama laa sant nga yokk ca la ma la sant loola su ma la fayee da nga mu ne waaye nag wa an tasuumu jéem a woor la ko jéem a woor ba baa ngeen di tële parce que koor du ñëw nga ne mënuma rek toog déedéet da ngay da jéem nga jéem waaw boo defee benn fan yëgoo dara nga def ñaar boo defee nga ñetteel nga yëg dara nga bàyyi ba ca kanam ba sa yaram dellusiwaat nga defaat ñaar bu koor gi jeex peut-être nga am quinze waaw bu nu waree rek weeru jot nga fexe ba am ca benn fan ñaari fan ñetti fan waaw balaa koor gee dellusi si nga matal waaye mënuma ko mënuma ko rek da nga jéem nag wa an tasuumu ngeen jéem a woor xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum taalamuuna bu ngeen xamal li ne ci woo koor waaw waaye nag bi sunu borom indee lugg dangar ji léeg gis jigéen joo xam ne day wax ne ginnaaw leeltu xadra mi ngi ko jàpp ca fukki fan yu mujj ya te fukki mu mujj daa am ngëneel te fukki fan yu mujjee mën na ma mën na maa fekk ci baaxu jigéen léegi ndax damay naan ay yëf pour bañ koo gis déedéet déedéet bu ko def mukk bul naan dara waaw bàyyil si bopp borom bi fu la jaarale nangu fa jaar waaw weeru koor nag ci la ñu wàcce alquran mhm. ci la ñu wàcce alquran hudan lin naas wa bayyinaat minal hudaa wal furqaan kon sunu borom mi ngi nuy jàngal eh, ni muy luggee dangari dangari koor gi mu waxit ne ku fekke weer ku fi weer wi fekk woor ko fa man shahida minkum shahra falyasum ku fi ku fi woo ku fi weer wi fekk woor ko waaw fa man shahida ku fi weer wi fekk nag li muy tekki mooy ñu seen weer wi waaw ñu seen weer wi weer wi lii tax ñu ne koor gi dugg na mooy nit gis ko nit koo gis ab jullit la te itam ku màndu la mu gis ko wax ko nit ñi nit ñi ñépp jóg waaw daldi daldi um waaw su fekkee asamaan si dafa am ay niir ba neexul a gis neena dañuy mottali chaabaan trente jours loolu nag la réew mi am lu ñu tuddee commission te mooy ñiy toog séentu weer wi seen ko wax nu ko nu am ci juróom ba juróom benn te mën ko séddale ñaar mën ko séddale ñaar mooy benn group bi mooy ñi nga xam ne nee nañu àdduna fu weer wi feeñe rek mën nañu um beneen groupe bi mooy dañu ne déedéet àdduna ñu nekk seenub séentu waaw ñu daal di dem ñaari commission yooyu buñ leen boole woon mu nekk benn ñu tànn kenn teg ca bopp ba bu weer wi feeñee mu annoncé bu feeñut mu wax danañ gën a noppalu ci ni ñuy def ni nga xam ne at mu jot ñaari kumte at mu jot ñaari korite at mu jot ñaari tabaski ila axiri yi waaye sunu boole woon ñaari commission yi yokk ko doole waaw yo yokk commission bi doole jox koy jumtukaayam ma ne kon séentu weer wi dutul nekk problème suñ pénc mi waaye bu ñu ko seetaanee nii muy demee moom ñaar ñaar dina fi bari lool tabarakallahu hmm, waaw léegi-léegi nag am ñu dëkk foo xam ne jant bi daanaka du so ñooñu dañuy seet ñi leen gën a jege ñu wékku ca ñoom daañ mën a defe koor gi daañ ci mën a dugge nañ ci bëgg dugge waaw am na ñoo xam ne seen bëccëg day gudd waaye période dana ñëw seen bëccëg booba guddoon gàtt wala boog mu tane wala boog mu tane waaw su ko defee mbokk yi ñu daal di koy dajale ne commission sàngam commission sàngam bu ñu dajee ba noppit nag ñu daje ci masala yooyu ñu tànn ci menn li feet nag masala ma mu tànnuñ ci menn buñ séentu umandoo mukk buñ séentu woreendoo mukk ndax lan ki gëm ne day dem njaareem ak ki gëm ne day dem jurbel foo jëm mu ne njaareem laa jëm foo jëm mu ne jurbel laa jëm buñ gëmul ne ñoom ñaar ñoo bokk jëm benn dëkk ah, diggante ba jar naa waxtaan ak ñoom ba ñu xam ne njaareem mooy jurbel jurbel mooy njaareem kon masala moomu masalam diine la waaw masala mu nekk ci téere yi la warees ko xam warees koo dund ba boo lëgee nu mën a am ngërëmu sunu borom tabaaraka wa taala ci wàllu saytu weer wi te saytul ko sunu bopp te saytul ko sunu bopp bokk yi bind yi ñu nekkoon te nekk ci ba léegi mooy ruuxu siyaam mooy ruuxu siyaam nga xam ne koor kon ñëw fi rek pour ñu xiif mar togg xëdd togg ndogg waaw sereti yéeg ñëw loolu taxul koor ñëw fi li tax koor ñëw fi mooy defar si penc mi changer jikko yi changer comportement yi changer relation yi changer force yi ba kenn ku nekk ñun yëg ak sociale ci digganteem ak i bokkam nangoo partager ñoom li nga xam ne moom la am jërëgéen jëf mbokk yi ci ànd beeg Sud FM ñu ngi jégglu soxla yi di jégglu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi ak réewi koor di ñaan koor gi borom bi nangul nu ko nangul leen ko sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi nii taxaw yor seeni këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal ko ci ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi